danoo ñëw quartier bii di euh, Tivaouane Peulh gox bi di Tivaouane Peulh euh, quartier Nimzat euh, VDN Almadi 3 nest pas noonu la góor gi. waaw quartier bi Nimzat Almadi VDN 3. Almadi VDN 3. waaw noonu la quartier bi tudd. tey ñu doon la nommé délégué de quartier lan nga yëg tey góor gi. Ah, waaw loolu day moom bëgg ci rek nag en premier lieu bëgg ci laay def. parce que wa quartier bi assemblée générale euh, vraiment def ma quartier ça fait presque deux mois légui nak PV ci commission ko tamit ñu def def bind ma lettre ni dañ lay d'accord ci li dañ may ah, commission ah, commission bu lay installé le drapeau ñu à partir d'aujourd'hui quartier am na délégué quartier délégué quartier reconnaître ba sampaloon ko drapeau installé nañ ko jox nañ ko tamit euh, maanaam arrêté bi nga xam ni euh, mooy tax mooy tax ma mu nekk délégué jox ma ko wane actuellement bés ni ki tey c'est officiel reconnaître ma comme délégué quartier. rek tey à partir tey maa nekk délégué quartier Nimsaat Almadi VDN 3 fii ci commune Patte d'Oie ci Astafura ci commune euh, tiwaan Peulh Niaga. Tivaouane Peulh ñàgg dañuy dellu si ginnaaw yow ku la xam-xam ni euh, responsable politique nga nekk ci benn parti nekk tamit homme d'affaires nekk chef d'entreprise nga nar a boole yooyu yëpp ak euh, délégué de quartier bi ba du. waaw xam nga euh, délégué quartier du affaire politique un responsable politique ça ne veut pas dire que boo ko defee ñu délégué quartier déedéet délégué quartier du politique kooku day loo xam ni quartier ba dañ loo danoo am yaakaar muy quartier bu ñu war a defar wala quartier bu ñu war a jëmbal ñu am yaakaar ci yow dajaloo xool mbooloo ma yow mii kat yaakaar nañ ni bu ñu la ko seeni seeni bëgg-bëgg ak li soxla di nga di diisoo ñoom taxaw ca ak ñoom ensemble ba loola ñu faj ko ku ci am problème nga tax ca waxuñu nga taxaw faj mais nag nga won ko yoon woo xam ne dafa mën a taxaw dalay quartier aussi ca commencé ca président la république ba ci gën a suufee mooy seen représentant mooy représenté ministre yi mooy représenté gouverneur préfet sous préfet yi mooy représenté maire mooy retraité sax gendarmerie ak police fii ci quartier bi parce que tey autorité boo xam da ngay ñëw ci délégué quartier bi normalement ci yoon bala nga dem fekk ci délégué quartier nga nga war a jaar moo la war a dalal boo amee sax am na conflit am na problème boo am ca quartier ba maanaam ñaari ni sax bala moo bala noo dem ci yoon délégué da caa war a taxaw bu ko mënee arrangé bu ko bu mun la arrangé nag ah ñu bàyyi nag dem ca yoon arrangé bi nag mooy dajale leen rek wax ak ñoom ka tooñ ñu ne ko tooñ nga jéggulul bu jégguloo ñu fexe kooko muñ ñu yemale ko foofu bu fekkee nag loolu ba porté plainte am tamit bu ñëwee te mu leen réglé ne ah ngeen dem ci yoon la yoon wax rek yoon def ko. dégg nañ say dëkkandoo yi si suba bi ñu leen di jël interview ñu si bëri ne gox bi bëri na problème mu suuf. mais alhamdulilah dañuy sant yàlla biñ la defee délégué peut-être boo ñëwee di nga régler problème yooyu yëpp daan ci jaxase ay famille daan fi jaxase ay nit loolu buñ la ko sasee lan mooy taxawaay. waaw xam nga quartier bu bees bu ñuy door créer nga xam ni suufu suufu état la am peut-être ñu ko doon jaay ak nangam nang ba loolu am ba ab dëkk am fa loolu ay conflit suuf faw mu am fa c'est obligatoire parce que fooy mbooloo moo gisit am na jub am na ñu jubari mbooloo moo ci am na ñuy def erreur am na ñuy def erreur ba pare suuf fi fa nekk loo xam ni li ëpp seytaane ci àddina suuf ci la bokk léegi kon nag loolu moom ay benn benn yu am ay coow même sax quartier yi nga xam sax seen borom seen titre yoo xam ni vraiment ban ko acquérir yàgg na teewul sax da fa dégg ay problème waxuma nag quartier bu ñuy door a sos quartier bu ñuy door a sos nag waa karce ba noo koy defar comme que ñoo koy defar nag moo tax ñu dajale nekk benn nag délégué quartier dara muy njiit lu sàkk rek nga xam ne xel état da koy reconnaître ñoom tam ñu tase di kii lu ñu def di ko diisoo ba métier bi nga xam moo nekk ci quartier bi bu fekkee quartier bi am problème mu suuf sax ñu xool qu'est-ce qu'on peut faire ak ens ak ensemble ak ñëpp ñu ànd ba vraiment quartier boobe seen problème suuf ñu am ak ñu mën koo régler teg ko ci yoon ba état jàppale nu ci collectivité locale yi ñu féete jàppale nu ci ak ñi ci war a ba problème mu réglé wu. loolu moo tax nag quartier bu bees moom loolu mun si ne mais nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax fi nañu ngi avancé ndànk te am nañu yaakaar bu baax yaakaar na ne quartier bi moom dina gën a jëm kanam li la waa gox bi sas góor gi lan nga ci mën a indi lu bees ak fan nga mën a yóbbu koñ bi non li ma li lin ma lin ma lin ma sas du dara délégué quartier lan ma def délégué quartier dafa am ay charte dama dégg ay wax si suuf ñu ne dañ la bëgg a def sax maire waaw non xam nga loolu affaire maire euh, maire ci ñuy ci ñuy ci ñuy ci ñuy nommé du nommé sax mais bu ñu defee assemblée générale ñi koy reconnaître maire moy premier maire poste politique daanaka mo la ko may mais délégué de poste politique maire moom dooli quartier bi képp mo koy joxé kenn du ko décréter mais nak ku ca ag nga xam yow candidat nga tamit candidat ya bari tamit bu mbolo mo taxawé ni la yow mi kët yo lan booloo fal la bo faloo daal di nek maire parce que nag euh, euh, loolu bu ñu ko waxee danoo gis ni yàgg damaa nekk candidat ci ay ci ci ay gox mais yàlla dogalu ko mais nag quand même ah, am naa ay tànk nag ci réew mi nag bu bu bu mérite am naa ay ndomba tànk maa ngi euh, jëflante ak ak waa réew mi tamit gox bu ma nekkit la ma ca man ci jokkoo ñu ci wala social ci leneen ci leneen loolu la boo gisee loolu ni ma fi nekkee ñu wax ko ni ma ci dana am yaakaar ci man rek xañ ne nekk naa fi ak ñoom maa ngi leen di wan loo xam ne lii ñu ngi ciy teg seen bët loo xam ne leneen li lu leen di avancé loola tànk mun teg tey ñu gis ni buñ jéggiwee nag mu avancé loolu moo tax rek ñu wax loolu seen yéene lañu wax rek mais nag yàlla moom noppi na yàlla mooy fale dugg nañ ci koñ bi def ci ba tey tamit reportage ñu si bëri taxaw ne dañ lay sant te ñëw gi ndax tey courant jafe woon na fi jàppale nga len ci bonu joté ci euh, ñu ngi lay remercier bu baax euh, di xaar lanen li nga xamanteni manké na ci gox bi ñu koy xaar ci yow pour nga andi ko. waaw bi man bi ñëw ci quartier bi fi woon fi ma nekk ni di sama kër gi sama soxna nekk fi ay tool la ko defam dama fi daan sam ay ginaar fi nekkan dégg nga ma am ay xar ay nak dama daana am 3 mois du fi ñëw. damaa fee tabaxan benn kii yu indi fa ay ouvrier ak gardien yu fi nekk liggéey ak man fii daan naa toog fii bay di di collecter par jour plus de cinquante tablettes nen par jour xam nga loolu kon maa ngi fi doon liggéey mais nag danoo dem ba nit ñi dëkk si benn kër yi bari kër yi bari kër yi bari ma mujj noonu ñoom tam ñu def deraka ñëw ci man nag dégg ma rek dan maa dégg ñu daal danoo bëgg ma taxaw ci eh, ànd ak ñoom ci liggéey kër gi ci dëkk bi ba dëkk bi vraiment dem kanam ah man tam moom wuyu leen ca loola nag ànd ci ak ñoom di liggéey ah far bi ñu demee ba fii nag ma xam comme ko ñu ngi ñëw man tam nag naa gooree ànd ak ñoom nag indi fi sama soxla tabaxaat fi nag dugal fi sama soxla di fi ñëw ma ñëw it bi may bi may demandé courant bi boobu sama jur rek jur gi fi nekk rek taxam mais nag bi ma ñëwee ba gis dëkk bi nag ma dama koy yaatal daal di am contrat ak rek def extension extension laa de la ci xaalis ma dugal ko ci quartier bi nag bi ma ko dugalee ci quartier bi dugal ko ma ni kenn ku ne ku la neex branchel te doo ma fay dara loolu lan gis aussi bi ma ñëwee ma organiser jigéen organiser wu ma ñëw organiser jigéen ñi ni leen di ngeen di liggéey toppatoo leen financement jox leen ko ñoom itam ñuy liggéey ba cay gis seen bopp di ci gis seen bopp ba cay réaliser di ma wax li woon sax ay résultats loolu moo tax ñu wax loolu loolu nag euh, comme ko wax man du ma ko wax que ñoo wax rek la leeral yow li tax ñu wax loolu ku la defal loolu nag a ah, di nga am yaakaar ca moom mais nag bàkkuwuma ko parce que ñoom it am na lu ñuy def loolu man loo xam man mënuma ko loolu la. tey ban conseil ngay jox ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal gox bi ci taxawaay bi nun war a taxawee yow naka lan la war a doolelee pour fu ngeen bëgg gox bi yegg fa mu yegg. li ma leen di eh, xelal mooy lan la ma leen daan wax ñu ko doon def nañ ko def ànd nekk benn parce que avant délégué de quartier association bi ma ñëw mu laa fi njëkk a association moom laa fi njëkk a def ñu ànd ceeg moom rapidement ñu taxawal ko ñu ñu di ko. association des habitants de Alma Almadies VDN 3 macha allah même pas bi ñu ko taxawelee woote ensemble général yàlla suturnaal ma ci maa ngi ñu ma Andal. avant muy am 10 jours jot nañ récépissé bi coolu lañ doon liggéey di ci bind ay lettres autorité di def lépp di dem ko ñëw bu waree dem gendarmerie dem gendarmerie fu aw kayit dem dem dem fu aw kayit wa nekk ñu bind lettre même dem na ba bind lettre président de la république ban tontuma di bind ay ministres yu may tontu ñuy avancer ndànk-ndànk bi association bi ba jàllee nag ba ñuy commencé recruter ndànk nag ñu ne nag nan wut nan nan wut délégué nan ko def ak quartier def wule délégué quartier bi ñu ko demandé te ñu accordé na ko ñu woote ensemble la loolu tey moo indi lii moo tax ñu ngi avancé pas par pas loolu moom li ko indi lépp nag mooy àndoo nekk benn loolee nag laa leen di woowaat ñu continuer waat ci loolu parce que fi ni am nan pas boo xam amuñu ko woon parce que léegi quartier la nu buñ reconnaître mu am délégué tamit bi ñu defee loolu tamit defee ensemble ba loolu pare avant sax ñu may installé tey taxawal na ay comité ak i commission nga xam ni kenn ku ne dama xam matière ba nga xam ne nga ñu woote ensemble ni la yow mii lii nga man yaa ak say naatoo nga jiite leen ko nga xam ne loola ngay gérer ci quartier bi waaw bu dee bu dee urbanisme taxaw nañ ko fii benn comité boobu benn commission bu koy piloté euh, bu dee social am na ñu koy piloté bu dee santé ak éducation am na ñu koy piloté am na fi daal presque lu mat euh, le mat euh, cinq xaw six commission taxaw kenn ku ne nous am solo nak moko nous jiite ñu lolu liggéey loolu loolu tamit nek ba pare quartier bi dañ en cinq îlots ilo moy li ñuy wax ay gox-goxaan ñu ndaw ci biir îlot bu ci am responsable bu ko jox nga day am ay membres yu ko seex îlot nous bu réunion bu woté euh, ndaje bu mag wax quartier bi la représentant fofé gox bobé ñu dajale lépp nag taxaw discuter ilo bu ne ñu xaw la nga bëgg la fa ne ak la fa war a dem ëllëg ñu tënk ko ñun tam autorité bu ëllëgee ñu am lu ñu yóbbu fi moom ci suñuy laaj. kon su ma déggee euh, maanaam sa liggéey du yem ci gox bi kese mais day tas biir ko Tivaouane Peulh bi yëpp ak li ko wër. xam nga euh, man sama objectif wax naa ko tey bi ne samp commission bi ñu ak délégué quartier yu ñëwoon nee naa leen ñun leen war a def danoo war a beesal euh, gën a. jox gëdd gën a ambitieux maam dellukat ci li ñu doon def d'accord mais ñun ñoo ko war a améliorer ba yaatal ko loolu li koy ënd ñun ñu fi nekk yëpp dellukat ci ci commune bi ba ba ci département ñu nekk benn xool nu mën a ensemble ngir xeex pauvreté ci ci ci commune bi ci département bi eh, ci départ dem sax ba Sénégal parce que man damaa bëgg ñoo am idée yoo xam ni ci Tivaouane Peulh idée yi dañuy dem ba idée yi jariñ Sénégal gépp loolu te loolu nag ñun délégué bu ñu taxawee mën nañoo génne idée yoo xam ni xañ na ñi fi nekk seen xel nekku ñu génne ko boole ko ñu ni kat commune Tivaouane Peulh délégué fi nekk ñoom proposé bi leen def seen commune ñeneen roy ko ci ñun loolu laa wax te aussi man loolu naa ci dox naa ci jéem la ma man ban expérience bi nga am pare nga pour teg loxo maire bi jàppale ko ci ci muy doxalee gox bi pare nga pour jàppale ko non man awma lu may jàppale maire man population lay jàppale man maire ak ñëpp laa ci maire maire est un citoyen comme tous les autres citoyens am nañ bëgg-bëgg. par ak sa xam ni ngay jiite ku la xam-xam man waaw yàgg na maa jiite man je suis chef d' entreprise je suis un homme d' affaires travailleur la man liggéey laa xam maire bu ma woo ci liggéey képp nag ma ànd ak yow ci liggéey mais pas auto chose man liggéey laa xam liggéey rek liggéey yaa ngi ma acté léegi nii politique mais man je ne suis pas mais nag je suis un homme mais pas un politicien politique du métier. politique ki koy def dëgg-dëgg daa war a am na ci liggéey pare doole politique parce que kuy politique da ngaa war a am loo def ci sa poos ngir mën a jëriñ sa parti ba nga ne mais waroo koo def waroo politique nger am looy def ci sa poos déedéet sacrifice la sacrifice mooy sacrifice pour population bi politique mooy lan baat bi lan la signifier maanaam politique waaye mooy mbooloo moo ànd rek pour pour defar seen gox plus semple que c'est sa mooy mbooloo moo ànd jiital kenn rek ñu xool lu ñuy pour defar gox ba defar gox bi nag yaatu na lépp ci la loolu mooy politique mais euh, <laughs> góorgóorlu rek te liggéey rek tout court man ku liggéey ak man rek ma liggéey ak yow mais nag maire kenn du ko forcé ni ku liggéey parce que maire dafa am lu ko tënk dafa am ay loi yu ko tënk loi yoo xam ci constitution ma la jógee ñu yóbbu ko ñu wote ay loi parce que attention avant maire yi di am dañ ko yóbbu assemblée nationale dugal ko ci constitution bi créer ay loi loolu la du loo yii du loo xam ni président moo jékki-jékki rek décrété déedéet loi la boo xam ni dañ ko doo xam ne dañ ko dañ ko constitution ko nangu ñu génne ko yóbbu ko ne def ko loi dugal ko ci biir loolu noonu loolu yooyu loolu lañ créé loolu lañ créé ay maire yi waaw ku ci nekk ku maire bu ci nekk loi moo la téye loi bi waroo cee jàdd dara loi nag mën naa am mais loi kenn du ko détaillé nag détail bi nag boo ko xamee boo comprendre loi bi nag yooyu yaay def nag loi yi noo ko mënee reyal mais loi loi bi dul defal ma nit det déet da lay taxaw orienté la nga liggéey. macha allah sa dernier message dernière question bi euh, mooy côté sécurité est-ce que pare nga pour ànd euh, justice bi gën ko xeex si insécurité bi nga xamante ni moo fi am. non insécurité man yàgg naa cee xeex yàgg naa cee wax parce que insécurité bi état képp du ko loxol xam nga bu ñu waxee ñu ne ak déedéet. insécurité population bi war ci am parce que insécurité insécurité lu koy def la population doomu aadama yi ñu nekk ñooy indi insécurité amul du malaaka du rab du dara kon nag loolu faw population moo ci ànd parce que nee naa leen fii au Sénégal état je suis d'accord mais boo xee état déedéet xam nga lu nekk Sénégal indiscipline bu ëpp dafa bari indiscipline ci partout nag boo demee ci mbedd mi am na ci boo demee ci oto yi am na ci même sax waxin sax am na ci liggéey bi sax am na ci mais c'est grave fi mu ne képp ngay dégg fii mu ne képp ngay dégg mais xoolal dugg ci oto yow sa xotu banaana yéeg ci lekk ko sànni ko ci mbedd lan moo gën a indiscipliné loolu amul wala nga def lu dul yoon nit la wax nga ni ko eh bàyyi ma waa yow te yow leeral lii nga def tegoo ko fenn loolu du indiscipliné mais indiscipline dem na ba ci dem na ba ci da ngay dem a dem ba day sadik loo nit day dem ba technique loo xam ne lii comme di koy comme di koy mala foo gisee léegi da ngay dégg ñu ni diw rey na doom ja diw rey na baay ba diw rey na jabar ja diw rey na jëkkër ja wala sax taalibe bi rey na sëriñ bi wala sëriñ bi rey na taalibe bi luy indi loolu ci indiscipline la commencé dem ba àgg foofu dem ba moomootu sa bopp te amul doo mën a expliquer dara loo ko defee loo xam boo ko mësaa dégg ci réew da nga naan loolu nu mu amee moo tax Sénégal faw ñu yoraat jikko yi man nag yooyu bu amet ki may jëkk dal ci ko mooy état du Sénégal waxuma ki gouvernement bi état bi organisation état bi bu ko bu ko tegee tam kenn appliqué wu ko nit bu jàddee yoon da ko doon yow mu jàdd nga yooyu loi nag loi amul ma Kom amul ma demba comme dal ci sa kaw dan la ci war a atte ak commandé doon sans exception mais ne Sénégal loolu amu fi da ngay gis ko ni fu nu weng ni kenn du ma laal nga gis ko nekk ci gouvernement détourné xaalis ni kenn du ma laal mais saa c'est grave loolu lépp ci indiscipline la loolu nag waxuma affaire mais loolu faw ñu yaraat jikko yi faw ñu yaraat jikko yi voilà. jërëjëf góor gi monsieur Sall ñu ngi lay bëgg di la ziar di rafetlu interview mais nag ci assemblée générale bi ci institut institut faw installation bi ñu may def faw ma gërëm ñi ko teewee. dinaa gërëm d'abord fii nga xam ni ñoomu wóolu doyloo ma def ma dellee quartier parce que nag mbooloo bi bari ba parce que fii ay téeméer téeméeri doomu aadama ñoo fi dëkk ñëpp tase te daanakaa ci ñi ci ñi ci mujj ñi ci mujj dëkk laa bokk man bi ma fi dëkkee matagul trois ans bi fi amee kër nag yàgg na 2009 mais bi ma fi dëkkee matagul trois ans ñu dajee ni yow yaanu doy loolu aw sas bu mag la mais maa ngi leen di gërëm di sant si doyloo googu di gërëm aussi ñi mbokk yi fi ñëw xar yi ak ñëpp ak grand mi ni gëm a jógeet ñu ñëw fii nag ñoom i tamit yendu fee tagg yonent bi alayhi salaam jàng fi alxuraan dégg nga ma ànd ak man ba bés bi jeex ñoom i tamit maa ngi leen di gërëm te nag di lancer un appel solennel ci population bii nan gën a taxaw nag defar suñu bi nekk ànd nan jàppoo nekk benn suudeewu bu nu suudee kenn du mënal dara di génn ay xalaat kun jàkkaar loolu ñu suw nekk benn kun jàkkaar loolu nga def li ñu bëgg bu buñ ko tegee ci yoon la laa doon toog di gërëm di sant jërëjëf góor gi ñu ngi lay béggee bu baax a baax